ñu bëri bu nawet bi jege see seen xel du dal benn yoon ndax coono bi ñu siy daj bu ñu jëlee fu mel ni Kër Massar bokk nañ ci ñiy gën a am inondation ña dëkkee ca boobule diwaan daal di nañ ci indi ay leeral. non bi ñu fi soog taw si on avait pas de problème d'inondation parce que booba euh, nab bi c'était pas encore méchant nit ñi aussi dëkkuñu woon bu baax construction yi ñuy war aussi yu si bëri nekku fi woon donc amuñu problème inondation ce n'est que après 2010 2015 daal lañ commencé am de vrais véritables problèmes d'inondation fii au niveau de la cité ak alentour yi. bon à l'époque le comité de fi nekkoon defoon nañ ay démarches auprès de des maires yi fi nekkoon en son temps mais y avait pas de résultat donc dañ doon débrouiller ak les moyens de bord fi fi amoon rek di di di seet di ut camion curage yi. Euh, di wut ay machine euh, euh, ni ñu koy waxti machine plongeur di évacuer ndox mi ci biir kër yi di ko seetlu ci mbedd mi waa inondation moom ci at yi weesu la quoi. ndax koñ bi ñoo ko sanc ndax ñetti kër wala ñeent moo ñu fi jiitu en période boobu amu ci ndax xam nga àddina bi jamono bu nekk ak liy xew jamono boobu am na ñoo xam ne sax léeg-léeg nga daan tabax di def ay corvée yu ndaw da ngay tibb ci suuf si pour def sa yenn euh, rakissement yu ndaw donc fii yëpp suuf la woon mais at yi lu muy gën di dem nit ñi di dëkk fii yëpp ay àll la woon léegi ndox yi fi nga xam ne fa la daan occupé. bu nit ñi demee ba tabax dëkk ndox mi dootul am fu fu fu muy dem te olof may wax ne ndox du bàyyi yoonam foo jaar rek fa mu daan jaar ba léegi moom du ko bàyyi kenn ñu dëkk ak ñu ñàkk a dëkk ndox moom du bàyyi yoonam d'autant plus que am na ay zone yoo xam ne fii daanaka ay dex la woon fii ñuy wax arrêt guy gi fii dex la woon ñun dañ fa daan dem bi nekkee xale di fee ci biir dex yi di jàpp ay mbonaat ak affaire yooyu ak en fii ci kaw tëli bi ci route nationale bi donc zone ndox la mu nekk loo xamante ni sonal na lool ña dëkkee ca diwaanu Kër Massar cité pénitence Camille Basse ak li ko wër ba pour ñu doxi seen yiite sax day nekk problème biir kër yi wala nga dem jàkka ja waxi noppi. problème ndox bi gis nga fi may jaayee yëpp mu nawet bi ñu tey du ma am fu may liggéey ngir ndox bi. inondation bi waxuma la jàkka ji rek mais day dugg sax ba si biir kër yi bu tawee fii actuellement impossible pratiquement impossible accès si jàkka ji pour julli ji. bon kër yi aussi fosse yi day fees ba ndab bi day yéeg da ngay sa fosse même pas trente minutes ndab bi yéegaat ba remonter c'était pratiquement impossible daal nga subvenir à ça donc ce qui veut dire que les gens utilisaient des moyens yoo xam ne c'était pas du tout orthodoxe jël ay plongeur di vider fosse di ko ci mbedd mi loolu c'était pas hygiénique mais il fallait faire avec. sonn rek sonn rek sonn rek ñun bu tawee duñu génn mbedd mi surtout diggu cité bi day fees dég dég dég ak ndox moo tax sonn yi day bal. mbedd mi day bal ah, mu ngi nii daal ndox mi daal sonal nañu. man may seen yaayu daara. man fi ñëw 2001. man bu tawee sax sama kër day taa ba lépp ay taa saal ak néeg ak duus taa dara du des perron yëpp doo am sax foo jàll waaw fi la ma fekk moom. waa sonal nañ torop sax su tawee moom fii yoon bi yëpp ndox lay doon. kër yi fa nga teg brique bu jàll pour mën a dugg ci biir koñ bi wala nga mën a génn surtout ñii liggéey nag ñoo si gën a am problème fajar gi boo génnee mën nga daanu lépp mu ngi ci si ndox bi moom sonal nañ torop torop sonn nañ gas bi dañ dafa yëkkati euh, suuf su xonq si fu ne nii kenn suulagul dara mu ngi nii ne fang bu tawee ngelaw li poussière bi yëpp day jóg ñu ngi nii suulaguñ ci dara mu ngi nii bu tawee ndox mi day refoulé di génnaat ci kii bi dugg ci biir kër yi ñoom nag li ñuy xamle mooy naam def nañ ñeenti fois ay jéego ngir saafara boobule problème waaye ba tey jile dara sottiwul ba si sax travaux yi nga xamante ni tàmbale woon nañ ko at ci ginnaaw ba tey yeggale ko. di leen sant chef déplacement bi ngeen déplacé wu ñëw fii pour di jël suñu doléance yoo xamante ne ni yàgg na si ñun fii te pénitence Kër Massar doléance bi mu gën a am mooy affaire inondation inondation yi nag. fu nekk dem nañ fa même avant chinois yi di ñëw ministère chargé de de l'inondation yoroon na suñu correspondance parce que man yàlla dafa dogal dama bokk je suis membre ci comité de gestion bu cité bi avant présentement tam je suis membre léegi demoon nañ foofu ñu juñ wax ay promesse ay promesse moto ki pompe électrique sax promettre nañ ko promettre nañ ñu ko mais booba léegi ñun ñooy dem ak suñu propre moyen di di di di essayer évacuer ndox mi boobu moo suñu problème bi bon bi chinois yi ñëwee nag ñun tam dem nañ ci chinois yi dem dem nañ temps yi passé dem nañ chinois yi seen responsable bi nee ñu dina commencé ab mars mu ne travaux yi dina commencé avant livernage parce que fonds bi fonds mondial la génn na dina commencé avant mars avant fin mars fii dina fii di fii dina commencé ba léegi gisaguñ leen te li si gën a doy mooy dafa am ay foo xam ne oto mëntu fa jaar ay maison yoo xam ne bu amoon catastrophe kenn mënu fa intervenir ay espace yoo xam ne bu amoon catastrophe kenn mënu fa ñëw ndax du kii suuf bi ñu taafoo te suuf bu yàggee day jël day jël day day bétonné wu. bon yooyu yëpp dem nañ posé nañ ko nee nañ ñu foto ko yónnee leen ko foto nañ ko yónnee leen ko mais ba léegi gisaguñ leen ba léegi gisaguñ leen barki demb rek barki démb ça fait trois jours def nañu rappel ak les responsables parce que daf ñu joxoon numéro def nañu rappel ak moom mais mun nañu. il est en réunion. non pas fajalu ñun suñu saafara parce que canalisation bi bi ñu jot a def nii bien vrai que tuuti la jël ci cité pénitence mais def na lu bari parce que ndox mu ci dugg dina dem mais travaux yi yeggul nga xam ne oto yi jaar yenn maison yi dañoo dañoo dañoo inaccessible pax yi nekk ci yoon bi yooyu mooy suñu problème mais def nañ pas parce que comme commencé nañ travaux yi def nañ pas mais pas bi nag moom moo des pour finition bi finition bi bu ñu toogee ëpp na at. bon dem nañ fa lu tax ñu toog ñu ne dañ gis yeneen priorité yu ko ëpp yu ko ëpp doole comme par exemple marché caaro yi moom loolu la ñu waxoon responsable bi. man maa ngi tudd Pape Cissé dëkk fii euh, ak Kami Baas waaye xam ne Kami Baas ak euh, pénitence dañoo duggante. inondation yi moom euh, comme ni ko sama président bi waxee c'est ay vers 2013 comme ça le 2010 bi nga xam ne nit ñi tox si nañ si nit ñi fee gën a bari daal waaw boobu ba ñu ngi si inondation yi. mais ñaari at yi am na ay jéego yu xaw a baax tuuti parce que euh, am na entreprise bu ñu naan CSTPS bu fi ñëwoon commencé woon ay travaux mais ils n'ont pas encore def nañ travaux de canalisation yi mais pour la plupart nag ñu ko defoon Camibas euh, pénitence euh, xëy na daaw rek ci nawet bi lañ leen commencé defal loolu te li ko waral sax moom mooy waa ji yoroon travaux yi moom moo désisté dem yoonam après ils ont fait appel au Chinois ñu defal leen benn avenant ñu ñëw yeggali travaux yi mais ñoom it comme ñu ko gisee rek ñoom it yeggaluñu xaw ma problème lan la daal. Euh, malheureusement euh, chef de quartier Camibas moom il était vraiment plein en plein dedans mais yàlla da ko moom ci fan yi rek mais moom vraiment bu fi nekkoon doon na mën a jox wax sax ba wax la contrat yi ni mu demee ak yëpp. bon travaux yi bi ñu commencé woon ak su ma maama e bon daaw la fi benn entreprise chinoise ñëwoon après multu demande lañ fi ñëw daaw commencé travaux de canalisation yi au tout début c' était expéditif commencé nañ defar bu baax vraiment gas nañ avenue centrale bi ba ca tali ba gas fii ba a Camille Basse mais à la veille de l'hivernage dañu arrêté bon nu on s'était dit que peut-être avec l'hivernage duñ mën a liggéey mais gisañ nañ ne après l'hivernage bi jeex na bon finalement gisuñ leen amuñu amuñu benn contact si ñoom daal euh, ils ont commencé les travaux Euh, causé ñu ay désagrément d' abord gis nga lii yëpp dañ ko gas suluñ ko am na ay mbedd yoo xam ne c' est pratiquement inaccessible parce que dañ fa jal suuf si mutuñ fa jàll mutuñ fa jaar moo tax euh, de vraiment daal on a on xamatuñ si ñoom dara daal fi mu nekk nii. waaw xam nga liggéey bu nekk dafa am dafa am yoon dafa am ñu ko géré woon entreprise yoo xam ne ñoom lañ ko joxoon ñu geere ko dem nañ ba ci biir ñu arrêté ko xamuñu nag lu tax ñu arrêté ko mais li tax suñu xel ñaaw. mooy am na fi seen base bi nekkoon fi nga xam ne fa lañ defoon seen matériel yeeg pierre pavé yeeg yooyu dañu xëy gis ñu déguerpir lépp dindi baraag ya matériel ya fa nekkoon yëpp ñu yóbbu ko yenn desutu kii yi fa nekkoon ñu jaay ko donc loolu teyal na suñu xel ba nga xam ne daal amuñ ci yaakaar malheureusement Sénégal du ñu communiqué du ñu wax ak askan wi du ñu communiquer dañuy jékki-jékki rek def li ñuy def mais daal li gën a teyloo suñu xel mooy fa ñu defoon seen base nga xam ne fa lañ doon jëlee seen i di liggéey loolu moom dajji ko jaay baraag yaag seng yaag matériel yaag desitu yëpp ñu jaay ko. nguur bi fi nekkoon commencé woon na di gas pour defal ñu canalisation bi élection yi di waaj a ñëw élection yi jeex fa la ne tàkk ba léegi laalatuñ ci leen gas bi ñu gas sax daf ñu gën a sonal ndax bu ñuy dox day metti dañuy yéeg ba ci kaw di yéeg ak di wàcc. wax yàlla sonn nañ lool. ba tax na daal ñuy sàkku ci nguur gu bees gi ak maire bi ngir mu jàppale leen laataa nawet bi di dellu si waat. sur le nouveau gouvernement li ci xaar mooy ce qu'on attend de tous les autorités tous les autorités ñuy gouverner mooy ñu defar ñu un cadre de vie bu baax c'est ce que aspire à tous les tous les Sénégalais aspirent à un cadre de vie. comme le département Keur Massar érigé par son excellence monsieur Macky Sall l'ancien président Sénégal moo ko fi exité woon je crois que avec les nouvelles autorités dinañu gestu avec le nouveau maire de Keur Massar Sud aussi de fa nga xam ne fa la ñu dépendre nga xam ne ci régime bi la bokk xëy na on va faire euh, bloc autour de ça pour vraiment ñu xool nu ñuy dimbalee ba ñu achever travaux yi pour que au moins avant l'hivernage bi di ñëw ñu mën a vivre sereinement. léegi nag ñun ñu xaar peut-être gouvernement bi fi nekk euh, dinañu ci dimbali lancer waat. projet bi liggéey yi continuer parce que du fii rek am na yeneen zone yoo xam ne tamit noonu la ñu sonnee gis nga kër yi ni muy mel boo karalewul nii doo am jàmm da ngay di peinturaat di peinture di peinturaat te loolu li koy waral rek mooy nab doo bi bu ñu defoon tëli yi canalisation yi génn loolu dinañu dimbali daal ci dëkkin bi ak nekkin bi. xanaa ñu yëgal suñu travaux yi ba pare euh, euh, euh, jaayal ko ci koñ si ginnaaw su koñ bi principalement parce que fii axe la ay waa assurance ñëpp fi lañ jaar moo xam à pied la wala en moto ou en véhicule fii lañ jaar fii daal axe principal la bon sans compter rek ñu si ginnaaw voilà c'est ça donc ñu ngi xaar ci gouvernement bees bi ñu ñëw daal yegg li travaux daal. xanaa xaar ci nguur bu bees bi rek Diomaye Faye président Diomaye ñëw jàppale jàppale ay ay ay waa Pastef rek a fi dëkk nag cité bi ay fans Pastef rek a fi dëkk. ñun nag ñu ngi leen di gërëm yéen waa Leeral TV di leen sant yéenay dugg ba ci biir nit ñi di leen laaj seeni naqar maa ngi leen di gërëm di leen sant macha allah yal na leen yàlla fay. xanaa ñaan nguur gu bees gi rek mu jàppale ñu te yeggalil ñu sunu tali sunu sunu canalisation yi. waaw buñ ñu jàppalee moom ñu jël ndax sonn nañ torop na suñu doom yi dañuy jàngi jéggi tali bi te ci ndox bi la ñuy jaar xale bu jàngi boo ñëwee yëre bi nga sol moom mooy loolu da koy mujj si mi ko mën a jàngewaat suba des fois seen saag yi wadd ci ndox mi. risque yëpp ci te ay xale lañ ku ñu jàppale moom mu jël wax dëgg yàlla ndax fii sonn nañ torop torop torop si problème mu ndox mooy suñu problème à problème ndox moom amuñu beneen problème ndox bi daal moo ñu sonal balaa nawet bi moom bu ñu dimbalee ñu jël. man xam naa ni ki darge Cheikh na Cheikh Sadbou war xayti Chérif xam naa ni dinañu jàppale cité pénitence fii ba Kër Massar ki inondation bii dootul amati si cité pénitence. mu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ni ña dëkkee ca diwaanu Kër ci cité pénitence Camille Basse ak li ko wër ñu ngi koy jànkonteel muy inondation loolee nag def ay at boobaak tey naam xawoon ni woon nañ am yaakaar ba ñu tàmbalee woon travaux yi at ci ginnaaw waaye ba tey jilee kenn yeggalewul yooyu le travaux ba tax na ñuy ñaan ci nguur gu bees gi ngir mu bàyyi leen xel bu baax jàppale leen ba balaa nawet bi di ñëwaat ñu saafaral leen seen problème ca noonu nag jot nañoo jokkoo ak yi nga xamante ni mooy directeur projet bi di wuyoo ci turu Mamadou Tall mu daal di indi ay leeral ci lépp lu jëm ci travaux d'assainissement bi les zones waaye itam lan moo waral yéexaay bi ak fii ñaata diir lañu mën a xaarandi ngir travaux yi pare. travaux yi donc euh, démarre nañ depuis euh, deux mille vingt trois donc moo tax it euh, pour ces zones là mooy Camille Basse te ko aussi cité Pénitence on a def Euh, ouvrage yëpp de drainage donc ñu si suuf enterré notamment dem clôture presque trois mètres de large et aussi réseau secondaire donc moo tax ces zones là depuis 2023 donc inondation yi a été complètement atténuée euh, sans travaux mooy bu jeexal complètement travaux donc voirie moo fa des donc la voirie donc pour def ko dafa am ay processus parce que dañu commencé depuis dans d' autres zones vers euh, l'unité 3 l'unité 9 donc compléter l'état arborescent donc euh, dans ce sens-là donc euh, l'entreprise même démarre une étude d'exécution de voirie donc euh, il reste seulement à faire def course de base bi ah, aussi course de bi ah, en pavé auto blanc en terminé eh, par euh, les bordures et trottoirs donc euh, loolu moo fa des incha allah donc xam naa d'ici hivernage donc euh, avant hivernage incha allah travaux yi na jeex donc pour ces zones là donc je permets même demaat yeneen d'autres zones parce que c'est pas seulement zone boobu moom inondation il a d'autres zones qui sont qui à des inondations donc ça permettra même que qu'on puisse se déployer dans d'autres zones et régler les problèmes de manière